bu fekkoon ba mu waxee coow li waroon na arrêté pour man waaye ba léegi mel na coow li des na lan nga jàpp nii mooy tax ba léegi coow li des. coow li fa mu des. opposition bi waaw. xam leen ni kat duñu noppi benn yoon sañ naa dellu saat ci kàddu yi. waaye loolu loolu góor du ko def. bu hmm. ci dellu see gis nga nit ñi dinañ ko bàyyi. Hmm. nit ñi dinañ ko bañ. Hmm. te nit gis nga gannaaw moom waxoon na ne. duma ma def troisième mandat. ñu topp ko mu ne duma wax jotu ko ba waxam jotee mu génnaat ne leen duma ko def ok nañ jàpp ci li wax waaye dem ba mu yàgg mu delluwaat ci ginnaaw boobaa ngeen ba ko réew man daal li ma xam ku def lu baax ñu ne la waaw góore waay jaa jëfe waay waaw kay gis nga Macky doful Macky xam na ni nit ñi ay workat lañ Sénégal dafa am ñoo xam dañoo foo mm-hmm. dañuy coowandoo di yuuxoondoo di waxandoo waaye gëmuñu dara dara dara dara dara soo leen xamul nag du sotti Macky daal war naa pose natt ay nitam démb ak niti teem ba xam lu mu ko jox rek mu xam peser na nag gis na li mu gis li mu baax na moom moo wax ne troisième mandat duma ko def lu ci desati kon kay mu ngi suñ kanam duma ko def noonu na leen waxuma dara duma wax duma def dara waaw dem na ba mu yàgg mu wax ba wax jotee wax na la waxoon def na ko léegi nag jaajëf Macky daal moo ci moo ci yow jaajëf Macky jërëjëf Macky jaajëf Macky lii rek a ci jekk amul leneen nag góor daal ca wax ja alxorru xorrun maalam yatakallam góor bu wa fekkee ne waxagul gore na waaye bu waxee nekkul gor tànk deful la mu wax def na ni wax jeex na ana Macky nag nit la nag Macky ñeme naa wax wax wax ji waxaat leneen ak di def leneen loolu du ko def xelam xalaatu ko waaw mais nag nit ñi dañoo doy waar nañ ko jaajëfal jërëjëf jërëjëf jëf waaw jeex na loolu rek moo ñu ci war ndax nit bu waxee lu baax baa mu def lu baax jaajëf waaw ko kii dem tool du dégg jaajëf boo demee doo ko dox jaajëf kii demu tool doo ko wax <laughs> waaw mu nga sooy dem tool <laughs> romb euh, fekk tool nit ñuy bay nga ni jaageen jëf waaye jaageen jëf jaageen jëf jaageen jëf waaye ñu bay ne na ngeen def ngay wax nangeen def ngay wax ndax defuñu dara waaw <laughs> waaye ñu ne si tool yi kay di góorgóorlu da nga naan na jaageen jëf waaw Macky nag góorgóorlu na moom daal la waxoon def na ko jaa jëf man laa ci xam jëf man nag man yàlla daf ma bindee man sama décision kenn mënu ko jël man lu ma xasan matt dinaa ko dagg man loolu la ma yàlla bindee dëgër bopp moom wax dëgg yàlla moom def naa ci tuuti waaw tuuti moom def naa ko ci tuuti rek waaye waaye yow luy luy luy loolu yow sa gis-gis gi mooy Macky day dellu ginnaaw na dellu ginnaaw si yow waaye kii taxaw wax télévision wóor ko àdduna bi yëpp liir yi sax xam nañ ko mu xëyaat taxawaat waaye loolu loolu ko def àdduna bàyyi la ñëpp lay bàyyi bu boobaa nag mu gën a neex loolu du wax nañ leen bàyyi rek jërëjëf Macky jërëjëf Macky jërëjëf Macky. ñoom nag li ragal mooy mu bañ a dem waaye yóbbaale Sonko bi Sonko du dem kañ dem doo dem du doo du ma dem doo dem noonu la ragal dëgg-dëgg. Macky daal li ma koy ñaan. Mm-hmm. te di ko ñaan. te ko ñaan ginnaaw jaajëf yi. na baal Karim. Mm-hmm. baal Khalifa Sall. Mm-hmm. baal Sonko. woyu ma woyu ma sëkk na lu mu koy yéene. xanaa xamu ni léegi léegi léegi ñu di ko nettaliwaat ay at rek yàggul Macky bi mu faloo léegi yàgg na a ah, ah, jeexul ah léegi yàgg yàggul yàggul lii itam yàggul kon Macky boo defee aw woy ba nit ñi eh, ñi baax wala ñi am xel mu rafet ne li nga def baax na baax na mm. fexeel daal dimbaleel Karim mm. Khalifa Sall Sonko ku la di ñëw yor réew mi mi yàlla mooy joxe nguur te yàlla waxagul kan la koy jox est-ce que bi Macky bi bi Macky Sall waxagul dara xam ne xam nañ fu mu jëm. ndem ah, Macky lañ xamalul dara yàlla nag yàlla du mat a wax. allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man yàllaa ko wax yàlla ne na nguur maa ko moom maay jox ku ma neex mu jiite. yoo xam nga ni nguur du caaxaan. nguur yer ku ko yore. du yoroo caaxaan. waaw kuñ ko jox nag maa la jox nguur maa koy nanguwaat bu jeexee ma jël ko jox ko keneen. waaye yàlla ku koy jox da laa tàggu yow. damaa daa tàggu keneen. nañ nañ bàyyi rek Sonko ak mbooloo mi koy topp mu mel ne ñëpp ragal nañ ni kat bu demee élection kum ci mën a demal nit yi mu tàqali toog yow mu mel ne ñoom loolu lañ ko te moom Sonko xamle na ni bu toogee day tëj ki nga xam ne mooy Macky day tëj ay mbokkam wax na ko carrément dégg loolu tamit est-ce que Macky du jël ay devance ak lépp ku def lu rafet am lu rafet ku jëf lu rafet am lu rafet na def lu rafet rek def na lu ñëpp rafetlu wala boog ñenn ñi rafetlu nañ ko na def lu rafet rek devance bu mu mën a jël bu yàlla dogalee dana ko dal bu yàlla dogalee loola dana ko dal su yàlla dogalul du ko dal moom daal na ko baal baal Karim baal xalifa ñu dem ci terrain bi ak ak ñu ci des nag mu bañ a laal kenn ñëpp dem ci terrain bi rek wuti comme baax na xam nga yàlla yàlla dafa doy waar yàlla ay mbiram kenn xamu ko feebar amul dee newul handicapé nekkul lenn nekku fi fan la koo teg ah mën mënu la koo teg ah voilà mën na la koo teg ba doo dem mhm. ah. mën na koo teg kum mën a doon mën na koo teg xalifa mën na koo teg karim mën na koo teg sonko mën na koo teg ñépp eh, ñëpp ñëpp waaw bëggoon nag décc faal ñépp ñëpp kenn ku ne mën na laa teg loo xam ne dootoo dem mhm. da ngeen di xam calculer leen yàlla bàyyi leen calcul bi ngeen di bàyyi ngeen ngeen bàyyi xel yàlla yàlla muy mbir mi yàlla bu ngeen ko jëlee def ko seen mbir muy muy mbir mi su ngeen ko deful seen mbir ngeen xam waaye yàlla rek yàlla rek moom daal Karim daal Khalifa Sall Sonko na leen sarax ngir yàlla baal leen waaw ah bugaan bugaan bugaan ah bugaan ah, kenn du ko téye xanaa bugaan duñ ciy téye Bougane moom ci wàllu parrainage. loolu nag de man nga xaw ma ci daal moom daal na leen dimbale rek na leen dimbale rek na leen dimbale. kan non man nag man nag politique bu ma man. Ah. du ma politique. wax naa ko bu bu yàgg. te mm-hmm. du ma wax dellu ci ginnaaw. Mm-hmm. li ma wax leer na. Mm-hmm. du ma politique du ma politique. man moom noonu laa mel. waaw parce que mënuma politique politique doo wax dëgg. boo boo waxee yéen dëgg sax xanaa ñu daax la <laughs> politique ma man du ma politique du ma kuy tax nga téye ma ma bàyyi man du ma politique man politique mënuma ko duma ko def bi may def daal muy bu diine diine mën naa ko defal politique diine ji yàlla ji yonent bi alxuraan mi daara yi ku leen laal ma damm sa loxo ku ko laal ma damm sa loxo su ma nekkoon bàmmeel sax dinaa génn damm sa loxo benn weerante nekkul ku bu ma nekkoon bàmmeel dinaa damm sa loxo benn weerante nekku man loolu laay politique man diine laay waaye affaire adduna moom waxuma ci dara waaw waxuma ci dara du ma waaw su ma doon politique nag naa ko jàpp waaye du ma <laughs> may euh, ziar tamit sama confrère bi nga xamante moom tamit euh, macha allah euh, di ziar li ma fi tasal yëpp ginnaaw loolu nag ma ñëw ci samay laaj li ma la bëgg njëkk laaj rek mooy kaaw ki nga xamante ne mooy Karim Wade ak ki nga xam ne mooy Khalifa sama confrère tudd na leen léegi muy ñi nga xamante ne tey mën nañu wax ni ah, ñu gis ne ci raxas seen der ragga leen dañu seet ngir ñu mën a xam ne ah, moom la ñu dugmal en 2024 mu mel ne nag ci ah, ñuy d'accord ñenn ci askan bi d'accord ci ndax ku ne xam ne ni Sénégal mbirum duubal dafa doon loo xam ne lu yàgg la ci côté ñi nga xam ne ñi si ëpp ñoo ne tey mun nañu wax ni ba mu koy génn ba ñu ko audité amul fukki dërëm boo xamante ne toppee nañu ko ko tey bu fekkee ñi nga xamante ne tey dañ leen a jiiñoon luubal ñu ñëw bëgg leen a ragg teg leen ñu bokk ci candidat yi mën na am sax ñu dem ba ñu choisir leen ñu war a yor réew mi tey loolu ban ban ban ban jàngat nga ci def xanaa choisir leen yor réew mi rek dañ leen choisir rek yor réew mi loolu dong laa jàngat amu am amu leneen parce que gis nga politique dafa sew politique am na loo xam ne danañ la ko jiñ sax doo ko def politique dafa sew mbir la mu sew ruuj boo neexul bët lool doo ko gis waaw kuñ dem nag ba tuumaal la dem ba mu yàgg ñu ne la lañ la tuumaaloon ba nañ ko jeex na tuuma la mais du jël tuuma bu ko jaawale ak jël su fekkoon ne jëfa dafa jël ñu jàpp ko ngeen waaw kay waaye dañ koo tuumaal ne ko dangaa ngaa def li da ngaa def li da ngaa def mu ne defuma ko ñu ne ko yaa ko def da ko dama lay tëj tëj ko kee bañ ko tijjee dem na kee bañ ko tijjee toog na moom daal lii gën a rafet nañ baal xalifa sàll nañ baal Sonko nañ baal Karim bàyyi ñoom bugaan ñépp ñu dem rek suñ demee ci terrain bi lu waaye am jël waaw nañ leen bàyyi rek ñu dem parce que boo amee ay ndaw nag yuy góor góor nga leen di da leen jàppale yow am nga ay ndaw ndaw yaa ngi góorgóorlu eh, di di def lu njàmbaar gu ne wax dëgg da leen di da nga leen di jaajëfal da nga leen wax aw leen góor waaw waaye defee leen ko nii defee leen ko nii defee leen ko nii noonu la noonu la kilifay def waaye nag duñ leen xeex boo leen xeexee du sotti da leen di bàyyi ak seen bëgg-bëgg ñu dem uuti ndax ñu ñeme waaye boo leen xeexee boo léegi kenn kenn du ñeme waaw te nag ndaw yi buñ leen xeexee kon kooku fii ni am màgget dinañ bëgg a jox réew mi màgget man te yor réew du yor réew réew ak ndaw koy yor mag ne ci wetam di ko digal réew ndaw koy yor mag ne ci wetam di ko digal mag mënta daw mënta tëb mënu dara waaye mën naa joxe xalaat bu rafet voilà waaw ba ba ba léegi macha allah kon noonee ñu ko déggee ay ndaw ñoo yor réew mi kon mu mel na ndaw yi bari nañ ci politique bi waaye oustaz bu bu ñu signalé rek xëy na am na benn moor démb ci kaso yi ci ñëw koo xam ni Pastef la bokk ñu jàppoon ko ci jamono yi manifestation 27 mai xaw ma 28 ñu jàppoon ko ci manifestation yi démb ñu gis ni dee na ci kaso bi tey est-ce que taxaw jotul est-ce que tamit réew mi jëmoo ci euh, ay guddi gu ba setagul est-ce que tamit kooku di nga xam ne ci kaso bi la dee lan mooy nekk àtteem moom ki dee ci kaso bi. yàlla noonu falay dee yàlla nu fala atam di yam yàlla nag laa wax qul innal mawta alladi tafiruna minhu fa innahu mulaqi yàlla ne dee mi ngeen daw day dajeeg yéen da ngeen dajeeg dee da doon dem kaso ba pour daje faak dee lii problème bi kay mooy lu tax ñu tëj ko looluy problème bi waaye kanta dee gi moom kenn du dee sa dee jotu koo gis mu dee deeyam jot waaw nit ñi nag ñoo mel noonu liyee ko reek këlee ko reek dañ ko liggéey ak dañ ko def liyeeg dañ ko rek la ngay dégg waaye ku dee sa de sa dema jot qul inna al mawta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaaqikum suma turaduna ila aalimil xaybi nag wa shahaadati fa yunabbiukum bima kuntum taamaloona ñu yóbbu leen ci yàlla nag mu leeral yàlla leeral li nga nekk woon ci àdduna yépp nga ne ta faax wala mu leeral li nga nekkoon ci àdduna nga ne pat loolu yaakaar ñu ne si man de ñàkk ko Moussa Faye lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoo ànd ak nga xam ne mooy président Macky Sall ndax gis nañu si ñuy jooy ñii di yuuxu ñii di daanu tey lan nga leen di wax ñoom ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom ndax dégg nañu nga wax ci say wax ni góor du ginnaaw te loolu nag bokk na ci loolu li nga xamante ne sama wax na ko am na si ñenn ñoo xam ne ñu ngi njort ni président naa dellu bu ñu xoolee bu fekkee ne topp nañu nañ koo mën a ndax ñoom ba tey dañuy wax ni ñu sañoon moom mooy nekkaat ci bopp réew moom mooy seen candidat. waaw lan nga leen di wax. waaw bu ñu sañoon mooy nekkaat ci bopp réew mooy seen candidat waaye sañu. jeex na. mag yi nee leen sañu ma bàyyi naa seet leen ko sañ ah amul amul amul leneen ni ah, loolu jeex na sañu jeex bu sañoon sañu ma sañu ma mu jeex ah loolu rek la amul leneen parce que gis nga eh, nit ñi xam leen baax na bari na ñuy jooy di saalit seen intérêt bopp dong la ñuy jooy seen bopp la ñuy jooy jooy luñ mag yi seen bopp lañuy jooy jooy luñ mag yi seen poche seen poset moom lañuy ñuy jooyal ndax bu fekkonte ne li ñuy woote dëgg la mag yi duñ ko gañ ci mair yi mag yi duñ ko gañ ci député yi député yi ñaar rek la am te bu duguloon kooku dem fekk kon kon du dem waaw léegi yow nga ñi ñuy jooy di yoo booba ñoom ñu ngi fii lu tax góorgóorloo ñu am am député yu bëri lu tax góorgóorloo ñu nga gagné maire yi mais yow nga gagné maire yi dem ba mu yàgg ñu nanguwaat maire yi ci sa loxo boo ko boo deful lii lii mu def su ko deful du sotti yuux yi yëpp mënta ñàkk yuux yi mënul yow moom mënta ñàkk yooyu jooy jooy yooyu fii mënul ñàkk pour pour ñu defe ne gëm na la pour ñu defee ne Macky bëgg na la nga di am na ñoo xam sax bu ñuy jooy dañuy defaat nii ba xam ne ñu leen di xool wala xool ñu leen di di rey ba cëm voilà moo ngoog cëm <laughs> nit daal dafay dëggu rek dëggu daal moo baax uh-huh. dëggul dëggul dëggul uh-huh. waaw koy ànd ànd la moom ci yàlla su yàlla jeexee nga bàyyi ko uh-huh. waaw fekk yàlla nga fa ànd leen waaye boo gisatul yàlla bàyyi ko rek loolu mooy dëgg bakkan yoo xam ne rot na ci moo waral mu ragal la bokk ci li nga xamante ne mooy euh, présidentielles yi ndax amaana bu ko bu déclaré woon ne dafay bokk ci réew mi euh, que nga xamante ne moom la ñu weesu woon tey président ndax gis nga si moom ni que dafa dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko xoj wala bokk euh, dañ ko président li mu koy def sago la ko defee mm. gis nga am na nit ñoo xam ne boo leen jiitoo ñi defee maa tey da nga leen def maa tey tey waaw ah jiite nga ay nit ñu def maa tey bañ gañi la gañi lañ ko mën a tuddee ndax am na loo xam ne ku daan am ndam nga ba mu yàgg de amatoon ndam ñu nga mujj ah kon ko maa tayaat nga nga indi maa tey waaw Macky Sall boñ ñu loxoom damm ñu loxoom defuñ dara nit la ndax waxoon na ne danaa wax wax a jot xanaa comme ba muy wax dama danaa wax dañ ko xoj mu ne danaa wax ba danaa wax dara xewul danaa wax waaye wax jotagul waaw sama wax jotagul eh, candidat troisième mandat danaa ci wax waaye duma ci wax léegi parce que yàgg na ko wax ba mu jotee nag wax na ci jeex na léegi daal loolu dañ ko war a leem ba mu jekk nii def ko ni dossier bu ñu leem leem ni laxas ko ba mu tekk takk ko ba mu dëgër roof ko ci suufu lal bi jooju wax jeex na ñu ñu ñu wax ne moom daal na dimbale Khalifa Sall na dimbale Sonko na dimbale eh, Karim Wade bàyyi leen ak ñoom buggaana ñëpp ñu dem liggéey ku ku yàlla tudd nga dem ku yàlla tuddul doo dem gis nga yàlla yàlla mbiram dafa doy waar waaw su ko neexee eh, kiy doon président doo ko foog du jib coow du jib waaw waaye réew boo ko jiitee Macky maa ngi koy jaalee di ko sigil ndigaale bu baax a baax ci ñi nga xam ne jógee nañ fi euh, ndax ni mu ñu jaalee lañ ko war a jaalee waaye itam euh, am na loo xam ne daal ku ko gis ci sa njaboot réew mi nar a takk réew mi nar a am problème mu nga man ci dara te defoo ko de yàlla na yoxe yow moo tax mu man na ci dara waaw bi mu waxee loolu dégg nga coow bu noonu troisième mandat la jam nooy def kon réew mi day takk kooku moom amul amul problème moom xam na ko sax. waaw xam na loolu. waaw mais gannaaw man man naa man naa maîtriser loolu man koo téye ma def ko parce que maay maay maay njiitu réew mi. ma indil sama réew jàmm bët bañ ko daan xool ñu di ko xool euh, euh, dañ ko doon tuddee ñu tuddee ko ndax Sénégal réewam teraanga lañ wax waaw ba dem nañ ba fi dem nañ ba léegi réewam tedd di la waaw réewam tedd di nag boo ko bëggee defaraat danga nga koy indiwaat ci teraanga rek mu jeex ah, mu mel ni ki nga xamante ne tam moo di Barthélémy mu daal di troisième candidature am da koy demandé bu ko demandé wul moom mu bàyyi politique bi nga xamante président euh, wax ni du bokk mu daal di waxaat ni buñ ko bàyyi mu dellu si waat ci li nga xamante mooy décision ñaari wax <laughs> loolu waxi politique la rek mm-hmm. waxi politique la rek da ngay tànd rek mm-hmm. dangay ngay tànd fii ba xam mooy li ma la wax bul di gaaw a wax rek mm-hmm. moom daal lu mën a am Macky wax na li muy wax rek nañ leem dossier yi denc rek buñ ko sulliwaat bés bu ko yëngalee te ko ko dugal ci yëngal bu boobaa dina métti trop ci réew ndax lii fi am mosu fay am te dañ ñoom bële du fi amaat war bu ko gën a métti ñëw am fi kon nag bii ñëwaat muy gën a tàng téeméeri junni yoon si nga yàlla su rëddee nga far mu rëddaat nga far booyee boo nga bañ a rëddaat booy rëddaat bu bu bu rëddaatee dalay rey rëdd sa kaw ba xam koy far kenn du ko far waaw yàlla rëdd na nañ topp ci li yàlla bëgg wan nañu lu leer ne ah seen réew a ngi tàkk de li koy taal nag leer na kii bu waxee lii bu ne premier euh, danaa dem troisième mandat réew mi tàkk su ne duma dem troisième mandat réew mi fay kon Barthélemy Dias li mu wax ah wax waxi politique la rek bu bu bu bu ami nangam nangam bu amul nangam nangam fa amul hmm. mu ne bu delu wat ci lam ma lol kay wax la <laughs> oustaz dire la xamna juste dañuy terminer ak euh, ablay fay